jërë ngeen jëf mbokk internet Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax amaat mbégte contentement rek di ñëw ci li nga xamante ni moom mooy seen évolution sur actualité euh, et bien évidemment li nga xamante ni moom moo xew ci biir semaine bi yëpp jusqu'à aujourd'hui euh, dinañ ci ñëw de façon round dëpp dañu koy commencer rek ci visite bi nga xamante ni njiitu réew mi amaloon na ko euh, Mauritanie ginnaaw loolu nag tey ma fa li nga xamante ni moom mooy ca diwaanu bi seeti fa Adama Baro mu nekk nag pays frontalier du Sénégal euh, mën nañu wax ne euh, seen diggante dina gën a ratax donc bu ñu jugee ci loolu aussi dinañu ñëw bu baax a baax ci ki nga xamante ni moom mooy euh, libération Ousmane Kabaline Diatta ku wax Ousmane Kabaline Diatta nag wax histoire par rapport ak ci condition yeeg li nga xamante ni moom la ñu jëloon comme ay chef d'inculpation ci ndoddam li mu mel ni rek jamono ji jotaat na li nga xamante ni moom mooy liberté ba tax na rek actuellement nag Sénégal mi ngi ci urgence moo xam ci wàllum souveraineté alimentaire wala minier wala li nga xamante ni moom la ñëpp di réclamer muy bonne mœurs yi ñu war a ñëwaat parce que jamono ji coowal occupation illégale de la voie publique jur na anomalie yu bëree bëri ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy lal ci trottoir yi di jaay par rapport ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw di leen fa yëkkati mu mel ni euh, manque de communication dafa am si diggante bi donc un peu euh, loolu moo nar a nekk ossature li ñu xamante ni moom la ñu war a waxtaane ñu dalal fi nag suñu doyen muy monsieur Coulibaly ñu gën ko xam ci Doudou Coulibaly di euh, journaliste bu mag en même temps chroniqueur ñu lay dalal bu baax a baax doyen. ñu ngi lay fay bu baax laal di nuyu ñëpp. surtout nag ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci plateforme Sénégal 7 yëpp Sénégal nag 7 nag euh, du ma fi gan te bu ma ñëwee fii sama kër laa moo tax may nuyu personnel bi yëpp. Mm-hmm. di nuyu euh, administration bi ñëpp di nuyu sama frère ak sama sœur yi fi ne. Mm-hmm. Mm-hmm. merci beaucoup donc dañuy dem directement ci waxtaan bi. Mm. Euh, monsieur Coulibaly muy libération Ousmane Kabaline Diatta. waaw euh, yow mii nga bokkoon ci non seulement ñi taxawoon wax ne euh, li ñu ko teg maanaam jël ko traité ko comme une personne très dangereuse. Mhm. par rapport ak Sénégal jiñ ko fi ay terroriste yooyu. Euh, nga mhm. yàgg wax ne procureur de la République su fekkee génnee na benn benn preuve. Mhm. jëmale ko si moom dans cinq ans mu wax la tey bu ñu xëyee gis ñu libéré ko yow nga waxoon loolu tey. Hmm. Euh, euh, euh, lan ngay indiwaat comme réponse ci loolu li may andi réponse ci loolu mooy am mbégte bu mag mbégte bi nag du par parce que man dama am victoire mais justice moo am victoire dama ne woon procureur le 16 juin 2022 ma ne ko bés boo àndee preuve bu ndaw si li nga tuumaal Ousmane Diatta ñu koy woowee kabilin may naa la soo ko kondanee cinq ans nga condamné waale ma man dix ans li ma bëggoon wax foofu te li ma waxoon en son temps wax bu garaaw la mhm. ndax procureur de la république def conférence de presse Sénégal yëpp wër ko média wu internationaux et internationaux yëpp wër ko mu def une communication nga taxaw ne communication bi mu def teguwul ci dëgg li mu wax du amul loolu c'est extrêmement grave mais bi ma koy def aw ma woon beneen solution bu dul def loolu parce que li mu raconté ak ni mu ko raconté ça ne s'est pas passé comme ça xam nga loolu nag yow boo toogee xam ce qui s'est passé procureur ñëw wax benn affaire déformer les faits li la war mooy rétablir la vérité barki démb journaliste daf maa woo ne ma dañ ñu ne Ousmane Kabiline Diatta et en fu mu nekk nii ñu ngi koy waaj a bàyyi mm-hmm. te yow da nga jege waa famille bi da ngay confirmer wala da ngay infirmer ma ne comme man jegewu ma famille xaw ma Ousmane Kabiline Diatta nii de nom nii de famille nii de père nii de mère xaw ma ko masuma ko gis masuma ko rencontrer mais d'après li am parce que il faut ñu dellu si waat si fay dañoo toog benn période benn contexte politique bu grave bu métti ñu yeewu suba teel ñoom seen presse ñoom presse Macky bi ndax presse Macky dafa amoon une presse boo xam ne bu buggee yàq sa der si ñooñu la doon jaar gis nga même ñooñu dañu war a def reddition des comptes ndax day yomb tey gis naa leen ku si nekk changé di changé ay ligne éditoriale mel ni di wane équilibre te daanuñu équilibré c'est-à-dire kuñ doon rendi ñoom lañ doon jox paaka bi pour nga rend ko seen presse boobu ñoo bind ñu ne jàpp nañu benn rebelle bu garaaw boo xam ne Casamance lu jóge Ousmane Sonko moo ko dugal dakaar pour mu taal fi ay bomb ça c'est extrêmement grave yaa ngi dégg procureur bi dans sa conférence de presse mu waxaat lu gën a garaaw mu ne waa ji dafa àndoon ak ay rebelle yu bëri waaye biñ ko jàppee ñeneen yi bi ñu ko déggee dañoo tas biir Dakar waa kon xanaa kon ñun instant boobu on était en danger ay rebelle yu jóge Casamance ba dugg dakaar yore ay bomb tas ci dëkk bi te mun ko exploser loo à tout moment waa kon procureur boobu duñ ko jël taqal ko ay monop moom ak chefu gendarmerie ak chefu police ñoom ñëpp ñu taqal leen ay monop à l'époque c'était général Moussa Fall waaw dama ne moom dama ne tous les officiers yore suñu sécurité muy militaires yi muy policiers yi muy gendarmes yi waruñu leen taqal ay monop yóbbu leen rëbës parce qu'ils ont fay mm-hmm. ay rebelle jóge Casamance ba fii dugg tas fi mais ni doon fooyee réew mi moo graaw ba pare jël waa ji taqal ko jox ko benn tour boo xam ne keroog ba procureur defee conférence de presse sénégalais yi dañoo ne kon ki dugg dakaar kii c'est ex kii non kon kon kon kon kon suñu force de defence et de sécurité yi jàmbaar lañ ndax kii mooy numéro deux wu benn L boo xam ni waa ji wala moom mooy wax de dama damay wax sénégalais yi nañ demaat ci texte conférence de presse mu ngi si internet soriwul mu ne waa ji def na ay ay fait d'armes Sierra woon def na ko Libéria def na ko tel dëkk def na ko Guinée Bissau def saana maanaam daal présente ko comme quelqu'un boo xam ni non mais un militaire chevronné Euh, nu mu tudd spécialiste des kalachnikov te ki ñu jàpp benn innocent la boo xam ne lamset sax mënu koo téye rey nit. d'accord euh, mais loolu bu mu amee. Mhm. ma taxaw wax li may wax tey les faits moo donné raison. Mhm. dama ne ko doo am preuve doo di preuve te li gën a graaw mooy waaj ak cousin bi ñu ko jàppaloon lu ñu leen wax. condition bi ñu leen jox ne leen kaa leen ñu jox leen cent millions passeport diplomatique pour ñu woo média yi ngeen taxaw ne yéen Ousmane Sonko moo leen contacté woon pour ngeen dugg Dakar éclaté loo fi ay bomb mais ngeen foog mbir mi dañoo war a jël Ousmane Kabiline tey bàyyi nañ ko rek nit ñi kontaan tàccu rek mu jeex mais ñi mën woon su complot la mais dañ leen war a seeti ça c'est extremement grave parce que yàq nañ deru Sénégal tey dëkk bi dafa wow koŋ xam nga la moo tax mu wow koŋ. Mhm. j'avais averti Sénégal pêche moo ko yore ak touriste. Mhm. touristes yi ñoo ñëwul depuis novembre ba léegi. Mhm. parce que ñoom ñoo li ñuy wax noonu ak yàq deru Sénégal tey jii moo tax situation économique bi ñuy dund tey ah ñu koy dund mais kon affaire bi waruñu ko yeewu suba teel rek di ko bàyyi non. alors ci biir réduction des comptes bi kon yow jàpp nga ne euh, euh, euh, affaire. 94 milliards yi nga xam ne ñee nañ Ousmane ko peut-être nag jox na ko dëgg keneen ak keneen wax si da nga jàpp ni dañu war a approfondir approfondir cas mais fii cas war a approfondir moo bëri cas yi ñu war a approfondir moo bëri parce qu'il s'est passé des choses tey dafa am ay procureurs yoo xam ne dañu outrepassé seen prérogative parce que procureur conférence de presse boobu mu defoon noonu en son temps mais c'était pas une une une une une conférence de presse de la magistrature, ce pas une conférence de presse de la justice, c'était une conférence politique, une conférence de presse politique pour charger un opposant moo tax fu fekkee Ousmane Sonko dafa taxaw ne si Adji Sarr si lii ak si lii dañ ma doon complot mais Ousmane Sonko ñii di ko félicité tey di jéem a jaay fair play bu doon kon seen sago waxuma la nekkul premier ministre tey mais kon rey nañ ko parce que c'était ça leur projet mais léegi ngeen bëgg ñu jël loolu rek kii nii nii man pour man pétition bi daw pour un mandat d'arrêt international contre Macky Sall mais ñëpp ko war a signé Macky dafa war a dellu si il doit rendre des comptes son fils doit rendre des comptes parce que affaire u affaire wu kii yi nii ni mu tudd affaire wu nervi yi mhm. da see takk rip te li ma si xam bëri na Amadou Sall fait partie des gens qui recrutaient les nervis nervis yooyu ñaata nit lañu ñu rey ñu bàyyi noonu mu jàll ñaata nit ñoo dem prison pendant ñaata plus de 3000 personnes. donc chasse aux sorciers ñu yàq seen àdduna. bi chasse aux euh, euh, bi ñuy wax kon c'est c'est une obligation. mais ni loolu du chasse loolu loolu de. bon ak kàddu yooyu am na moo ko yëkkati les Amath Suzanne Camara génn nañ ko di ci wax. waaw non non xam nga mooy lan. Mhm. mooy nga dem fekk benn waay def ko proie. lii du chasse lii reddition des comptes la. Mhm. reddition des comptes mooy xam nga lan. Mhm. yaa fi defoon. mais kaay wax li nga defoon lan la. Ah. Mhm. mais da ngeen yaakaar ni les gouverneurs ak les préfets mais décision yi ñu doon jël yow nga yeewu suba teel un préfet de dakaar ou bien un gouverneur de Dakar jër plus de cent ou trois cent jeunes nga la leen tey doo leen liggéey parce que moto ngeen yor da nga foog loolu c'est-à-dire ça c'est des décision à prendre foog te tegoo ko fenn yaa a eu aucun argument tey la bi bi bi nit ñi kaasee ba kaas. ay manifestation doo doon am te gën tere moto yi mm-hmm. mais kon ça veut dire la xewoon fii covid 19 ba ñuy dóor nit ñi yeewuñ suba teel ñu ne il faut apprendre à vivre avec la maladie mm-hmm. lan lañ waxoon il faut rester chez di dóor nit ñi di tëj marché yi ñu toog ba si yàgg ñu évoluer te ba ñuy wax loolu am na fi ay sentinelles yu taxawoon ne leen bàyyi leen dóoraate yi on peut vivre avec la maladie ñu ne leen du dëgg mm-hmm. ñu ne leen booy yi ngeen di xañ nii seen dawal moto du ñii ñooy taal réew mi parce que nag xam nga ñooy taal réew mi sax xale bu war a dem jafi cag-cag yaa ngi dégg mu nga ne ko tey doo dem liggéey mooy xanaa demal manifestation mais xale dina gaare cag-cagam di dem manifestation hmm? donc ñii ils ont fait oh, un ay erreur mhm. de gestion deuxièmement des détournements de deniers publics troisièmement nag ils ont trop abusé de leur autorité alors duñ si def reddition des comptes beneen bi exemple yi bëri na. Mhm. léegi fu mu ne nii chaque jour nga dégg benn dénonciation. Mhm. mais ci biir dénonciation yi mais demal ministère de l' environnement mais ministère de l' environnement carnage financier fa am. of nag ñu koy doog a bind mais gars yi bi ñu ko commencé wax yàgg na. Mhm. ils ont un directeur ah. des parcs nationaux qui s'appelle Bokar Thiam li may ñaan li ñaan les nouvelles autorités mooy ñu dem audité la gestion de Bokar Thiam parce que Bokar Thiam déjà d'abord bi ñu koy bi koy nommé il était à huit mois de la retraite il est là depuis juin deux mille vingt et kon ça veut dire que retraité na depuis trois ans kan moo ko fa téye. et pourquoi ñu téye ko fa. et quelle est sa responsabilité sur le carnage financier wu quarante cinq milliards à gos tant de milliards à droite. mais bu ñu demee xool dem ministère de l'environnement dem direction des parcs nationaux mais dinañ fa gis loo xam ne lu extraordinaire la nañ dem laaj gars yi kañ lañ gëj am tenue te chaque année ñu génnee xaalisu tenue kañ lañ gëj a am li nga xam ni moom la ñuy dundee noonu lu mel ni ay petit pois ay leneen ak leneen nañ dem laaj leen nañ dem si agent yi. ak seen indemnité yeeg mais mais nañ dem si agent yi dëgg-dëgg laaj. man am na agent bu ma ci rapproché woon mais wax na dafa déplorer exactement seen situation yi même hôpitaux yi nga xam ne day nekk ci biir park yi. ay militaire lañ ñoom dañuy dugal seen loxo bu baax a baax par rapport ak quartier bi mais toujours retour yi ñuy am ñoom dañ doon dem ba dañuy sonn seen salaire yi day tardé indemnité yi ainsi de suite donc. Euh, mais dama dama laajte scandalu armes yi fi amoon armes yu bon yoo xam ne mu maanaam def ko def ko matt rek matt di ko taalee di ko jaaroo rek loolu rek lañ si gars yi deful armes yi munitions yi ñu jënd. munitions yi du dugg ci armes yi. mais scandale moo am foofu damay inviter les nouvelles autorités ñu dem xool Bokar caam li mu def foofu. d'accord c'est extraordinaire. ñu leeral bokkul ak Moussa Bokar Thiam bu communication. waaw exactement. voilà donc tout à l'heure balaa ñuy tëj point bi parce que ci wàllu réduction des comptes bi dañu gis ne euh, dañu ko tàmbali rek euh, ku ci mel ni honorable député Abdou Mbow génn na ni état bi dañu war a dem liggéeyi xam nga te bàyyi coowal rapport yi parce que sénégalais ci loolu lañ leen di gën a xaar yow loolu euh, noo ko gisee. ah dafa yomb rek. ah non daa bëgg lu yomb rek parce que liggéey bi ak liggéey bee du benn la ministère des affaires étrangères di def est-ce que audit mun na ko tardel non non le ministère de l'agriculture di def est-ce que ay mun na ko tardel le ministère des sports war a def est-ce audit mun na ko tardel waaye nag ministère de la justice ak yeneen corps yi dañu war a fexe ba li fi am xam nga ñoom ñoom xam nga lu leen ñoom ñoom ñoom ñoom bi ñu jël décision. ne reddition des comptes ba ñuy doog a ñëw baaxoon na te sénégalais yi d' accord nañ si. ñoom waa pouvoir bi. waaw waaw mooy ñoom Abdou Mbow yi jóge fi. Mhm. ñu ñu d' nañ si de. Mhm. dañoo toog ba si yàgg ci vingt cinq personnes ñu ciblé si benn nit muy Karim Wade. jóge fa nax saayal ko ba mu neex leen ñu ab Abdoulaye Balde ñaari yoon lañ ko woo woowutuñ ko pare dugal ko seen gouvernement. Mhm. ñëpp jàpp ni te ñu gën a bëri si vingt cinq yooyu est-ce que desoon na ñett wala ñeent yoo xam ne léegi transhumé wuñ vingt cinq personnes ya demal xool demal xool Umar Sarr. Mhm. demal xool Pape Diop demal xool keneen ak keneen ña ci boole woon tey bu desee ñett sa la yem ñeneen ñu si des ñëpp à moment donné ils ont rejoint le camp de Macky Sall. kon ça veut dire que audit yooyu dañ koo génne woon noonu rek pour tiital leen ne leen ñëw leen mais kenn waxul loolu dañu ne bu ñu ko def affaire politique ña war a daanu nañ daanu te nañu war a ñañu xam nga audit yi lan moo tax mu am solo reddition des comptes nit ñi dañ yaakaar ne reddition reddition des comptes pour dóor nit rek la non wala règlement de compte non non déedéet xam nga lu tax mhm. te imaginal benn directeur bu benn société nationale def liggéey bu mucc ayib jël alal bi waxuma la mu sàmm ko de mais mu fructifier ko. Mhm. mais kooku am na sañ-sañu taxaw ne um, euh, Bassirou fay Faye delloowaat leen ma sama post mhm. parce que man je suis un patriote. effectivement parce que appel doo yi léegi mu commencé exactement. Mhm. loolu la kon redis kon reddition des comptes bi nekkul pour dóor ay yat rek mais mun na tax ñu gis des sénégalais extrêmement compétents. très très très honnêtes yoo xam ne jox nañ leen post mais ñu def ba liggéey bu mucc ay mais kon Abdou Mbow moom bu fekkee ni dafa ragal audit ak reddition des comptes moo xam lu tax mu ragal ko ndax moom ak xaritam yi def nañ fi loo xam ne def nañ fi loo xam bés bu Sénégalais yi tegee seen bët ñaata ñaata fii rek en quelque un mois wala même pas quinze jours wala ñaata scandale moo fi génn. bari na ñaata milliards la gars yi jëla jëlaat. 94 22 moo tax yow boo gisee yenn kër yi. Mhm. ak yenn train de vie yi mais yow yow tu te disais parce que sama benn waay dafa ma ne xam nga lan mooy milliard un mooy da ngay liggéey 16 ans di fayeeku 5 millions de francs chaque mois. te doo dépenser dara. mooy tax nga am un milliard. ban fonctionnaire moo fiy ku quinze millions nga xam ni war naa toog pandant seize ans du si lekk dërëm pour am un milliard te fii de simple fonctionnaire ay xale yoo xam defuñu ñetti at ci ci gouvernement mais ay milliardaire la mhm. kon ñooñu fan lañ ko jëlee des fonctionnaires multimillionnaires mhm. des sous-officiers xam nga dama lay wax rek ay ministère de l'environnement yi lañ gis rek de parce que foofu dafa am ay civil ci biir rek yooyu sax muy feeñ mais dama ne même tey jii armée bi ñu yor am ñoo taxaw fii naan ay wéy nañ jox réew mi armée bi bés bu ñu defoon audit ci armée bi nga gis loo most a gis lii maa la ko wax ce ne sont les gens les plus honnêtes. ah nga wax loolu doyen. ma ne déggoo lu ma la wax xam nga ñoom ñooy la grande miette. kenn du wax kenn du kii mais bu ñu yóbbu woon ay corps de contrôle ci armée nga dar sa gémmiñ ils sont pas les les gens les plus honnêtes. et ñuy wax ne Moussa Fall euh, def na fi liggéey. waaye déggoo lu ma la man je personalise personnalise pas dama ne. maanaam ñoom ñëpp de façon. ma dama ne boo duggoon tey jii si armée bi xam nga armée lu tax doo leen gis ak doo leen kii dañuy dañuy enveloppé seen lu bëri si secret défense. mais dama ne bu ñu defoon de manière transparente dem seeti xaalisu réew mi ñuy dugal ci biir armée bi est-ce que mu ngi yegg fu mu waroon yegg dëgg-dëgg nga xam ni y'a beaucoup de de de de de kii supérieur mhm. d'officier supérieur ah yoo xam ni ils sont pas meilleurs que les civils en termes de transparence. d'accord ñu jeexal foofu très rapidement fi ñu koy tëjee mooy euh, tey ñoom xëy na audit bi ñuy def dafa ànd ak silence moo tax liggéey bi duñu ko dégg ñu gis ne euh, euh, déplacement yi jot a ak euh, fi ñu logé yooyu en attendant ñu doon dem ci passation de service bi tey ñoom ñi nga xam ne ñoom ñuy opposition bu bees bi noonu lañ tuddee seen bopp. Mm-hmm. exemple bi may jël mooy dégg nañu Amath Suzanne Camara mu ne ñoom dañu war a bàyyi yàq gi te dem liggéey toogaguñu sax commencé yàq. Mm. ñu ne ñoom moom ci ay waxam nee na mu ngi ñoom Ousmane ku ci mel ni Ousmane ko dafa war a xoolaat ni muy waxee jàpp euh, kiiwu réew mi commencé di ko caxat caxatee te demaguñu fenn. xam nga nag vraiment nga jéggal ma rek. Mhm. mais waxu Ousmane si Ousmane Suzanne Camara xaw ma. Amath Suzanne Camara Amath Suzanne Camara loolu du ma si commentaire parce que dama koy jox dama koy démultiplier te duma ko démultiplier. Mhm. dans un pays normal doon na tal leneen lu dul wax. moom. Ahmed Suzanne Camara. ah moom ñoom nee na ñoom ñooy opposition. waaw non dama ne dama ne bu doon dans un pays normal nit ñi fayonte comme ni ñu waroon fayonte normal. Mhm. kon tey dina tal leneen lu dul wax. kooku nag du ma perte loo suma temps man waxam du ko dégg. kon yow jàpp nga boo bokk nga ci sénégalais yi wax ne dañu ko war a conduire directement prison. non. xam nga déggoo lu ma la wax su ma toogee sax une minute di wax si affaire nu mu tudd. Amath Suzanne Camara Amath Suzanne Camara yàlla xam na non <laughs> si. non du non non cest mais xam nga propos yi mu tenir à l'endroit du premier ministre. xam nga doo ne woon doo ma newoon loolu moo tax affaire bi. doo ma newoon ku normal. <laughs> ah da nga jàpp ni normal non dama ne dama ne boo ma ne waxoon ku normal. Hmm. koo xam ni am na dignité te am na respectabilité su waxee ma mun di décrypter mais mënumaa ñëw toog fii nga may wax Ahmed Suzanne Camara. non en fait c'est pas la personne de Ahmed Suzanne. mais mais déggul euh, yaa wax turam non. yaa wax ku toog ni premier ministre dama ne un ministre de la république. en fait dama ne waxu Ahmed Suzanne Camara. du mm. tax a dóor suma doom. du ma perte de temps di commentaire ay waxam. Mm-hmm. Ah, parce que yéen tamit. yéen mais jàpp nga façon ñoom. bu ñuy doxal non dimbali. il faut mm-hmm. ngeen ñuy dimbali yéen. yéen ñuy poser question yi il faut ngeen ñuy dimbali pour di ñu loo ci ay wax yoo xam ni wax yu jar taxaw la. waaw mais waxu Ousmane xam nga lan. Ahmed Suzanne Camara en fait lu tax ñu andi poser le débat sur lui c'est pas la personne de Ahmed Suzanne ou pas ñoom ils se sont constitués comme la nouvelle opposition. non moom il xam nga. xaar xaar ma terminer rek xam nga sànq da nga ne Abdou Mbow. pour nga comprendre xam nga may wax ci Abdou Mbow. dafa am ay responsabilités. député la effectivement Abdou mooy président groupe parlementaire. Uh-huh. Abdou Mbow mooy le chargé de communication adjoint. Uh-huh. de l'APR. Uh-huh. mais xam nga kooko mën nga ko toppee dara mais Ahmed Tidiane Camara kenn du ko toppee dara. d'accord ndax il ne xoola il ne peut pas engager l'APR il peut pas engager le Benno Bokk Yaakaar. mënu sa engagé boppam. moom mais quand propos yi mu tenir. mais dama ne ci ministre de la république. non dama ne mënul engagé kenn. Mhm. waaye itam nag est-ce que yaa ngi dégg bu baax. bu baax. Mhm. waaye itam boo rombee fii dof di la saaga dama koy faal. <laughs> d'accord comme foofu nga ko classé alors. Euh, euh, doyen euh, tey ñu ngi demaat ci beneen point aussi bu amaat solo. Hmm. muy souveraineté bi nga xamante ni sénégalais nag ñëpp moom la ñuy xaar. muy wàllum alimentaire énergétique tey nga jàpp ñu jàpp ne euh, wax nañu am mécanisme boo xam ne nag gouvernement euh, bi fi soog a ñëw foofu la ñu war a jaar pour que ñu mën a euh, yegsi ci loolu. waa xam nga dafa am ay défi yoo xam ne gouvernement bu bees bi dañ ko siy xaar muy d'abord la vie chère. Mhm. beneen bi mooy ñu assurer au Sénégalais un bien léegi si affaire vie chère dama lay wax Sénégal dama lay expliquer lan moo tax Sénégal suñu lépp cher suñu lépp cher li ko tax mooy ñun lépp loo fi def dafa ànd ak tax sama jiin bi ma sol nii bu doon jar téeméer ki ko fi indi jëndee ko trois cent ñëw di si ut deux cent bu ñëwee état Sénégal da siy teg yeneen téeméer muy taxe loolu tax moom mu may jaayee sama jin bi mille francs loolu moo tax lépp cher léegi taxe yooyu bu doon da dem sax fi mu war a dem ñu mun comprendre mais taxe yooyu ñuy teg dañ koy dugal foo xam ne amul njëriñ dama lay jox benn exemple ñun autoroute à péage lañ am autoroute à péage bi fu mu nekk nii passé na tuuti mbuur dégg nga wax baax mhm. mais deful deux cent kilomètres te muumuñu ko dañ koo leb mhm. dégg nga wax baax autoroute bi war a jóge VDN 3 yegg ndar 43 la war a jar 43 milliards mooy xam nga lan. Mhm. su amul woon HCCT Sénégal amul conseil économique et social et environnemental. Mhm. amul haut conseil du dialogue social. Mhm. amul nombre de ministres yi fi am ak de cabinet ak détournement yi fi am kon de 2012 à 2024 am nañ 10 autoroutes yu tolloog Dakar Saint-Louis biir Sénégal te duñ ko leb si kenn imaginez est-ce que yaa ngi comprendre bu baax raisonnement bi ma la mhm. mhm. duñ ko leb duñu ñaan Eiffage day ñëw ñu ne ko bëgguñu keneen ak keneen day ñëw ñu ne bëgguñu par nos propres moyens mais xool imaginez ñu jël trent cinq milliards. chaque année di si dundal ay politiciens HCCT kañ xam kenn xamul kañ la gëj a réunion ils ont cent et quelques membres yoo xam ni ku si nekk salaire u député nga am ak oto ak fonctionnement ak essence yow HCCT yow doo journaliste. Mm-hmm. kañ nga gëj a dégg couverture ñu ne la kaay wuyu HCCT. conseil économique et social kañ la gëj a réunion ça veut dire que lu mun lu ñàkk lu mun ñàkk mais yow boo toogee un mois liggéeyoo produire ci Sénégal set ba pare ñu kon di la fay dañoo ñàkk fayda parce que am loolu leen njëriñ production mooy tax Sénégal set di dox su ñëpp toogee defuñu émission hein mhm. zéro vue mooy xanaa ah, nag nit ñi du seetaan. zéro vue <laughs> ah, ah. na waar. Mhm. production moo koy andi. Mhm. dëgg la wala dëgg. dëgg la waaw mais suñu institution yi institution bu amul njëriñ doo ko dindi mais Macky Sall boo gisee muy gagné mu doon gagné élection yi loolu la tey ñoom Sonko ak ñoom Bassirou Diomaye Diomaye Faye bu ñu doon les mêmes méthodes dañ fiy yàgg mais est-ce que loolu la Sénégal soxla. waaye imaginer. rien que pour les institutions su Macky Sall defee douze ans doon defar at bu jot benn autoroute tey am nañ dix autoroute c'est important. Mhm. te am na ay am na ay gox yoo xam ne ba léegi xam nga lu ñu lay laaj. Mhm. am benn waay bu ñuy woowee Diouf Rang-Rang <laughs> depuis plus de quinze ans xaw ma vingt ans ñoom seen dëkk leen la ñuy laaj moo ñu defal leen rang-rang xam nga luy rang-rang. Mhm, mooy tali bu waxuma la tali de. ban bu xonk bi waaw waxuma la tali de. Mhm. waxuma la tali de moo tax ñu koy woowee juuf rang-rang. Mhm. mu ne ñun soxlawuñu courant soxlawuñu ndox soxlawuñu tali soxlawuñu dara dimbali leen ñu defal ñu rang-rang mais rang-rang amatul. Mhm. mais imagine loolu ñu jël xaalis boobu def dix autoroute waaye yow dix autoroute boobu boo ko defaree kon tey ñoom jomaay xam nga bu ñu ñëwee ñuy def. ñoom tali biir dëkk yi dañuy defar dañuy yeggale mhm. bu ñu defee ñoom douze ans wala dix ans ñu jóge fii keneen ñëw xam nga lu muy def ah ay gratte-ciel lay wax ay wax leneen mais dootul wax waxu tali dootul wax ay waxu ndox mhm. mais comment se fait-il que soixante quatre ans après le dëkk euh, nos indépendances ñuy am ay problème ay dëkk bi ñu ne amul ndox dëkk bi amul courant dëkk bi amul lu la fa yóbbu parce que rang-rang lañ bugg sax mu yóbbu leen fa mais loolu ça veut dire que c'est c'est un échec total et patent. donc Sénégal développé ko développé ko aussi dina xaw a compliqué. d'une part non moo gën a yomb. parce que parce que gis nañu occupation illégale de la voie publique bi. gis nga bañ leen biñ leen commencé. jubalal dama ne non non dama ne ñu ngi nekk di casse tout le temps. ak bay defal nank defal nank rek laala dama ne déglu ma expliqué la déglu ma expliqué la. gis nga Sénégal fii. Mhm. billaay walaay talaay soxlawuñ président Djiné. on n'a pas besoin d'un génie. xam lu ñu soxla ku jub xam nga Sénégal comme lan la mm-hmm. ñu jël xaalis ne la at ñaata la nga ne trois cent soixante cinq jours mais yenn saa yi mu xaw a yóbbu dem trois cent soixante six jours ñu la waaw ñu la dépense baa ngi nii saa yoo xëyee joxel dépense soo jubee mm-hmm. dëkk kër ga dina am problème mm-hmm. mais boo demee commencé jël xaalis bi di ko jëndee leneen bu ñu demee ba booru septembre dootoo mun joxe dix mille de. junni ngay joxe. Mm-hmm. bu ñu demee ba décembre mu jeex te at bi jeexu lii rek mooy Sénégal. dañoo am alal am koom-koom boo xam ne bu ñu ko gérer woon ni ñu ko war a gérer du jeex te dinañ si def lu am solo. ah en tout cas gars yi commencé nañ kaas parce que nee nañ fu ñu lal ñu yëkkati leen. waa non xam nga ku nekk nag xam nga euh, de la des secteurs macro y a ce qu'on appelle les bilans de secteur. xam nga lan mooy bilan de secteur. yow agriculteur bi am na fu muy mere. ambulant bi am na fu muy mere mécanicien bi ngay ñëw yëkkati sax am na day mer. dégg nga ambulant bi moom dafa jàpp xam nga dafa am ay questions yoo xam il faut ñu régler ko dans ce pays. xam nga man damay dem tous les jours Sandaga. dama sama chauffeur bi muy la ma koy ne Ablaye mu ne mën na mu ne ko mais seetlu mais ndekk fii xatul mais yow magasin magasin magasin bi mu ngi nii mais waa ji day lal ba si tali ba te bagage yi xaj nañ si boutique bi de parce que guddi da koy fat. waaw mhm. c'est vrai que yëpp dañ koy rangé waat. waaw mais léegi léegi imaginez ça ça dans aucun pays du monde. nga ubbi sa atelier un mètre jël si tali bi trois mètres non ça n'existe dans aucun pays du monde te gis nga loolu bu continuer day yàgg rek dañuy saxaar rek mais duñu tàq maanaam delloo nit ñi si discipline ndax boutique bi yow la ngay jaay ku romb xam na ni fii la ñuy jaayee lii ak lii ak lii laal la fexe leen li lay war a soli ngeen def reportage boobu ngeen xool dem leen dans les rues adjacentes de mm. Sandaga waxuma la ke kenn du lal seen buntu boutique yi ñoom ñooy jël boutique bi commencé ko fu mu yem si bunt ba ba jëlaat trois mètres si tali bi tali bi laa wax tali bi tali bi mm-hmm. mais loolu loolu loolu loolu nga ne nga ne ambulant mm-hmm. parce que ñeneen ñun dañuy dem si yeneen dëkk yi di xool seen seen seen seen seen loolu mm-hmm. seen seen exemple ambulant doo teg table ambulant yére bi nga yor wala affaire bi nga yor da koy téye nii am na ay am na ay dëkk yoo xam ne dafa am ay espace ambulant ñu ne par exemple 9h ba midi taxaw leen jaay bu midi jotee ñu raxas baga kii bi place bi ne à partir de midi bala lendemain waat kenn dootu fa jaay mm-hmm. dootoo fa rombee dootoo fa gis kenn. kenn ku fa taxaw. dëkk dañ koy organiser. Mm-hmm. c'est c'est mais yow nga ñëw daaj taal mais kon. kan nekk si boutique bu gisatul client jaayatul bu demee boo demee di ko laaj patente du fay patente te patant yi ñoo yore collectivité locale yi. Mm. looloo moo tax collectivité locale bi di defar lamp di jox ASC di subvention femmes yi. Mm-hmm. waa mais bu demee ñu ne ko ñun jaay ñu dara mun ñu joxe patente parce que yéen a bàyyi xale yi ñu ñëw taxaw suñu kanam di jaay. Mm. ñun li ñuy jaay ah mais ki yore boutique di ko fay wala ki yore boutique jëndee ko ay millions. Mm-hmm. munta jaay ki taxaw fayul dara di jaay à la xam nga lan ngay mujj def. Mhm. ñooñu dañuy arrêté boutique yi ñoom it jël affaire yi. ñëw taxaw ci tali bi. bii mhm. mooy Sénégal. doy na waar ñu <laughs> en tout cas doyen amoon nañu mbégte ak contentement dalal la. Mhm. Euh, xëy na euh, li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin bi. dinañu amaat occasion dalalaat la. Mhm. ci plateau bu gën a yaatu bi ndaxte nag comme niñ ko ni nga ko waxee sànq jot na ñun taskatu xabaar yi wala ñu ñuy liggéey ci média ñu taxaw ci sujet yooyu c'est des sujets très important moo mhm. bàyyi la nga tàggatoog internet yi. ba waaw waaw di gërëm ñëpp rek di sant ñëpp. di xam ni rek di wax ni euh, suñu autorités yu bees yi am nañ liggéey de. Mm-hmm. Euh, te xam naa ni xam nañ ni am nañ liggéey te li mu leen di ñaanal mooy yàlla bu ñu changé lu tax ma ne yàlla bu ñu changé mooy dafa am ay act yu ñu commencé teg yoo xam ne gis nga les sénégalais xanaa nga contre rek mais sénégalais yi commencé nañu bég xam nga tey Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ak ñi ñu àndal mun ñu régler problème mu sénégalais yëpp. ba mun de mais xam nga espoir nit ki toog am am espoir muy nit espoir bu jógee si yow tey boo nekkoon milliardaire ñu la dans trois jours ngay dee loolu lekk lu mun neex neex du la safati dara waaye mun nga bañ a yor dara am espoir am yaakaar di continuer di dund kon dañoom dañoo def ay ges xam nga boo ñu yeewoo suba teel ñu dem korité président Diomaye Faye jóg jox imam bi wàccuwaayam kilifa kilifteef bi mu am may ko loxo mu jóg bu toppoon waa protocole xam lu ñu koy wax président warul jóg di maye loxo mm-hmm. dégg nga di wax Ousmane bu toppoon protocole mooy taxaw si ginnaaw imam fi mu jullee korité ci mm-hmm. ci mbedd bi la julli dégg nga baax Ousmane Sonko démb dem na campagne Cap Manuel Cap mhm. baax ak yeneen ak yeneen nañ continuer gest yu mel noonu nañuy wone seen bopp mais gis nga Bassirou Diomaye Faye bu bu dodofloo ba gaa yi dugal ko ci ay affaire ay protocole gis nga ñooñu di la wax protocole ak sécurité ñoom ñoo lay détaché de ton peuple mhm. parce que foo ñëw romb ñu raxas fa ba mu set peinture ko ba mu nice yow li ngay gis mooy kon dëkk bee ngi dox. kon pourquoi journalistes yi soxor pourquoi ñu nekk si débat yi soxor. man dama doon dama doon damay comprendre lu tax Macky Sall doon mer Macky Sall day def ba dee gis gars yi di critiquer mu ne kon gars yi dañoo soxor fekk yàlla xam xam na gars dañ ko doon nax. xoolal bourse familiale yi bourse familiale yi xam nga lu baax la. Mm-hmm. mais bourse familiale yi moitié bi sax demul ci askan wi. gars yi dañ koy sàcc. Mhm. man gis naa koo xam ne nee na ma ba fii jëppal benn kër boo xam ne ñëpp dañ koo am te kër gi ay étage la kër gi étage kër gi étage la étage famille bi ñëpp am bourse familiale ñooñu war nañ am bourse familiale loolu mooy réew mi léegi yow boo deful contrôle ba ca war boo amul ay moyen ay nit yoo xam ne ñoo jël di la informer ci li xew dëgg-dëgg. Jean Collin da doon toog ba si yàgg wàcc Richard Toll bu demee si benn secteur public ñu ne lii ministère la wala lii la xolal mu taxaw si bunt bi déguisé wu yow bu la gisee noir blanc mu bind mhm. sa heure neuf et quelque keneen mu gis jean bleu kii xam xamul nit mhm. après mu toog ba onze heures mu dugg si ne leen mais pourquoi yéen du ngeen ñëw heure ku nekk taxaw di nar di fen mu ne la kaay yow nga naa mu ne la telle heure nga dugg si yow telle heure nga dugg si Richard Toll laa la wax de. Mm-hmm. dama bëgg ministre yi ak DG yi def loolu dama bëgg le ministre de l' éducation nationale yeewu suba teel dem ci lycée Koupentoum fanaan Koupentoum sept heures mu taxaw si bunt ba xool ndax proviseur bi teel na ñëw xool ndax professeur yi teel nañ ñëw xool ndax école bi mais bu fekkee ni chaque jour. chaque rentrée des classes ministre de l' éducation nationale lan lay def école plateau ak benn école banlieue ñibbi mais loolu loolu mooy lan loolu changement la. Mm-hmm. dama bëggu man gis la ministre de l' enseignement supérieur mu toog ba si yàgg dem université de bambay te du ko wax kenn. Mm-hmm. dugg dem fekk étudiants yi xool si yan condition la dundee. Mm-hmm. loolu mooy dëgg loolu mooy andi rupture. mais taxaw rek naan. je vais une visite gars yi sol seen cravat li ñu raxasul woon ñu raxas ko lu ñu warul woon bal lu ñu mësul bale ñu bale ko lu ñu mësul peinture ñu peinture ko mais boo ñëwee kon yow li ngay gis rek nga mun seede dëgg la. jërëjëf. am na solo merci beaucoup doyen amoon nañu mbégte ak contentement dalal la toujours égal à lui-même <laughs> moom moom euh, day dóor rek du day xàcc di dóor rek du mus a bàyyi donc ma leen di jox euh, rendez-vous à très bientôt di jaajëfal euh, la partie technique muy Fallou ak Dieye ñoom ñoo si jàppoon di leen wax ni lay demee saa su nekk sur Sénégal 7 restez connectés xëy na duudu bëgg nañu yóbbu Foundiougne mais xam naa peut-être dinañu dem ndaxte ñun ñoo nar ñu dem fa incha allah donc rendez-vous à très bientôt jërë ngeen jëf